chers internautes ci seen ay programme fii la ci Sénégal 7 TV te dañu amal mbégte comme toujours toog fii euh, ngir mun a euh, dégtal leen euh, le meilleur de nos programme bokk na ci nag yi nga xamante ne ñu ngi koy faral di def di dalal tamit invité de marque saa su nekk ak ñi nga xamante ni dañuy nekk au cœur de l'actualité ngir ñu mun leen càmbar ak yéen actualité bi waaye itam gën leen naa mun a leeral ci ay point yu bëri tey nag moo tax ba ñu daal di fi invité ki nga xamante ni moom moo di Ahmed Suzanne euh, Camara moom nag euh, fës na lool fan yi euh, ci place publique bi ak média yeeg yooyu ginnaaw ay kàddu yu nga xam ne yëkkati na ko du ñàkk dinañu fi indil ay leeral lu waral yooyu le kàddu ak it lu waral tey ji mu am yooyu les ampleur tolluwaay ba yu ni mel grand ngi kontaan di la recevoir sur Sénégal 7 TV di la bàyyi également nga nuyoo. waaw Penda waaw kontaan naa lool nga dalal ma d'abord. Mm-hmm. ba pare aussi ñëw fii. Mm-hmm. donc duguleet ma fii ñëw. Mm-hmm. waaw donc di nuyu képp koo xam ne rek kër gi di fi mhm. liggéey mhm. ak euh, ki ko jiite ak mhm. ñi ko jiite ñëpp donc di nuyu aussi képp ku ñu seetaan ak euh, képp koo xam ne rek euh, APR la bokk ak Benno Bokk Yaakaar di si jiital le président de la République le président Macky Sall ak njabootam ma Marème fay sàll mu baax mi ndax yaay moo baax donc baax rek la mën a def alors donc aussi di nuyu képp kuy jàngalekat parce que dama jiite aussi syndicat d'enseignants waaw donc ñëpp ñu ma bokkal syndicat ak réseau des enseignants nga xam ne Youssou Touré moo ko jiite aussi ma mm. topp ci ginnaaw. waaw ana Youssou Touré sax ni ko gëj a gis. waaw Youssou waaw euh, mu ngi fi nag. Mm. Euh, c'est que des fois yaramam sutante. Mm-hmm. mais quand mu ngi sant yàlla bu baax. alors euh, ginnaaw ba ci enseignement boobu nga xamante ni fa ngeen nekk gis nga fan yëpp coow li ci jot a am waaye mm. finalement diisoo mujjee am seen bi diggante ak groupe Sénégal mm-hmm. am ngeen ci satisfaction mbég mm-hmm. ngeen. waaw tout à fait waaw tout à fait xam nga ren boo xoolee grève bi métti woon na lool. ba après demoon nañ sax ba commencé yaakaar année bi dina yàqu. mais finalement yàlla sotti na ci ndox mu sedd. Mm. et aussi di ci loolu aussi gouvernement bi aussi di leen féliciter. Mm. Ah, te ku ko jiite mooy président de la République. parce que euh, dem nañ ba aussi xam ne euh, li li jaadu. aussi mooy ñu fekk ci jàngalekat yi. Mm. parce que c'était des revendications légitimes. mais jàngalekat yi aussi dama leen di jaa jaajëfal. parce que ils ont porté le combat. parce que ñun ñu jiite syndicats yi. alors cadre yi G20 G7 G2. g cinq ñëpp. bu ñu daan génnee ay plan d'action euh, mot d'ordre donc ñoom bu leen neexoon bañ ko suivre. Mm. mais quand même liñ ko suivre loolu moo ñu may doole. Mm. alors donc ils ont été à la hauteur. même su fekkee sax ci biir après amoon na ay ay ay ay coow euh, yéen seen diggante ak euh, jon bi ñu dëkk wala budget. Mm. ni daal virement ñu la waroon defal sax yooyu jotul am. mais après ñu gis ni jot nañ koo saafara ba daal di euh, wane li nga xamante ni moo di grille bi donc euh, depuis boobu tey déggatu ngeen wax ñëpp nag di leen joxoñ baaraam tuuma que neen jàngalekat hmm. xaalis képp leen intéressé ba leen joxe xaalis da noppi waaw mais yàgg nañ ñu jiiñ loolu hmm. xaalis moom ñëpp ko bëgg hmm. mais nag nga ànd seeg ngor ak dignité te loolu jàngalekat yi aussi mu ngi ci ñoom. alors moo tax ma lay wax sànq ne la revendication légitime. nga tey su fekkoon li ñuy revendiquer dañ ne lii jaaduwul du yoon. sax on peut Euh, opinion bi ak jàngalekat yi ñun suñu bopp xam nañ ne li ñuy li ñuy laaj yoon la. Mm. c'est vrai que li nga wax léegi am na solo maanaam euh, bi ñu xoolee avec le ministère euh, des finances daaw Daouda Diallo. Mm. xam nga li ñu xaatimoon ak gouvernement bi. bi ñu demee ba weer bi war a dee. parce que dañuy gis avec i solde dañuy xam lan moo nekk sunu sunu salaire. Mm. bi ñu ko gisee xool ne li ñu waxante woon ak ñoom defuñ ko. respecté wuñ ko. Mm. ñu te teel leen alerté. Mm. mais taxul gouvernement bi dégluñu. Mm. alors bi bi ñu gisee bi virement yi amee weer bi dee ñu constaté effectivement que ñun ñu doon wax moo am. alors donc boobu si lañ commencé waat yëngatuwaat. di déclenché waat ay mot d'ordre loo xam ne mënoon na ñàkk. Mm-hmm. alors si lañ toogaat ak guvernement bi gouvernement bi jëlaat engagement euh, semaine ba ca topp donc def ay virement effectif. c'est vrai que si virement yi am na aussi ay tuuti jafe parce que am na xam ne. Euh, egsi wul nu mu waroon egsee yooyu nangam na mais yooyu yëpp dinañ ko rectifier mais li ci ëpp solo ak yooyu l'écrasante majorité vraiment virement yi egsi na si ñoom. Mm. mais nag di wax ne aussi revendication yi du affaire xaalis rek wala boog du loolu rek ñu ñu xaatimoon ak guvernement bi. Mm. am na yeneen poñ yoo xam ne comme décisionnaire yi keroog rek ñu ngi marche bërki démb ak yooyu euh, ak euh, problème mu aussi terrain yi gouvernement bi diggoon jàngalekat yi. Mm. donc bari gouvernement bi lan la ci ay waxtaan nee nañ yooyu yëpp dinañ di euh, dinañ def le suivi de ces accords la mm. pour matérialiser ko mise en neuvre bi donc ñu ngi am yaakaar di góolu aussi gouvernement bi. Mm. que aussi il euh, le gouvernement aussi euh, ira toujours dans ce sens. Mm. d'apaiser parce que lépp loo xam ne rek luy bañ a indi jafe-jafe si njàng bi rek. moom euh, gouvernement bi moo ci war a jiitu. parce que xale yi dañu war a dem examen bientôt. Mhm. am na si ñoo xam ne sax euh, seen ñu ngi si composition yi wala bientôt. Mhm. am na si ñu ñu jot a commencé def surtout dans le privé. Mhm. alors donc accompagner euh, les enseignants ak les élèves ñu dem ci composition yi. Euh, examen yi aussi entrant sixième BFM mm. ak ak bac yëpp ñu def ko ci jàmm ak salaam mm. voilà bu ko defee nga xam ne xale yi duñ perte dara mm. te parents yi aussi duñu am lu ñuy rëccu parce que parents yi aussi sonn leen parents yi ñu ngi daj li ñuy daj rek ci inscription yi li ñuy daj ci jënd bic chaque jour wala cahier bu manqué ba pare xam nga war a toppatoo seen njaboot euh, le panier de la ménagère jox xale bi dund ak yooyu donc parents yi loolu moo war a nekk seen su loolu c'est maanaam Euh, jamono nu mu méttee. Mm. bon jamono nag nu mu méttee c'est vrai que Covid bi jaar na fi. Mm. ak euh, Ukraine bi jaar na fi. Mm. mais tamit. Euh, gouvernement bi côté boobu aussi mu ngi ci def ay jéego. ci Covid boobu nga xamante ni fa nga daanelee gis nga ni impact yi euh, déjà bëri na waaye du boobu la kese gis nañ tamit guerre euh, russo-ukraine bi tamit gis mm. commencé na moom tamit également indi impact yu bëri. Mm. président Macky Sall ñi fan ñu génn dem na euh, seeti ki nga xamante ni moo di Poutine. Mm. ba mu génnee ca yooyu la waxtaan également mu ngi rassuré nit ñi. ni Poutine également rassuré na ko. tey jii ñu bëri jàpp ni président Macky Sall waru woon tamit toll fu nga xamante ni dafa war a dem di jéggaani pour dem di ñaan njëkk ngir réew mi mun a am jàmm ci wàllub euh, dundin. Mm-hmm. waaw xam nga boo xoolee war na nekk nga xamante ne war nañ ko foog jéem koo anticiper. Mm-hmm. xam nga boo xoolee aussi euh, ñun ñëpp dañuy suivre euh, li xew ci àdduna bi surtout yéen ñu nekk ci média yi xam ngeen ne some Union africaine moo daje président Macky Sall jiite ko mu yebal Union africaine décidé ne ki jiite yàlla dogal mu tombeek président Macky Sall dafa war a dem seeti Poutine waxtaan ak moom sur beaucoup de chose. Hmm. c'est vrai blé bi lañ parce que les adversaires politiques donc loolu la mburu la dem wuti nangam nangam et cetera. Hmm. c'est vrai que on doit avoir yenn indépendance yi. voilà alimentaire. Hmm. loolu président mu ngi si doon def ay jéego. ci wàllu ceeb bi. annoncé woon na ko depuis 2016 ak yooyu. mais xam nga tey aussi <coughs> gouvernement bi mu ngi def jéego ci loolu te nguur nguur yëpp a war a def loolu. mais xam nga loolu li koy indi jafe-jafe aussi mooy sunu façon lekkin tey ñun au lieu ñu préférer mburu bu farine bi. mais mbur euh, ñu fe préféré mburu bu euh, euh, dugub bi wala bu bu bu mboq bi mais mburu bu farine bi lañ lañ préféré hmm. donc boo xoolee ñun Sénégal suñu colin suñu alimentation mooy tax lu ëpp ñu koy jéggaani mais su fekkoon dañuy fexe di consommer li ci ëpp si ñun 70 pour cent de nos consommations ak yooyu au niveau local lañ koy bay wala lañ koy defaree donc yenn jafe-jafe duñ ko am mais Poutine vraiment boo xoolee image yi hmm. ak fi mu recevoir président Macky Sall xam nga ne respecté na président Macky Sall respecté na Sénégal respecté na Afrique te comme ni ma la ko waxee du blé bi rek moo fa euh, euh, taxoon président Macky Sall dem fa mais xam nga ne guerre bi dafa war a arrêté yow xam nga ne guerre bi dafa war a arrêté loolu moo moo gën ci askan bi yëpp moo gën ci àdduna bi yëpp. Mm. guerre baaxul. Mm. tey xool da xool tey ñu ni ñu nekkee si jàmm euh, penda mm-hmm. léegi ñooñu nga gis seen population yi ni ñuy déplacé mm. xam nga seen famille di tas. ah ñuy daaneel seen ay immeuble mhm. seen ay ay yoo xam ne seen ay investissement yu ñu defoon ci ay des milliers des milliers de milliards mhm. donc loolu tamit mhm. baaxul donc daal euh, am nañ yaakaar que ne Euh, Poutine moom vraiment il a bien avec la la bonne euh, oreille à écouter le président de la République. te ñu ngi gis aussi euh, les, les fruits commencent aussi à tomber. ah animaux ani fruits yi commencé. à ah, mais euh, déjà blé bi nga wax rek. déjà comment euh, moom euh, Poutine jël na ci engagement yoo xam ne commencé nañ ko libérer. Mm. parce que li ñu doon bañ aussi mooy xam nga ñoom Ukraine ak euh, ak ak Russie producteur yu gën a mag lañ bokk. te xam nga comme bateau yi demuloon parce que surtout ay Mariupol nga xam ne. blo dañ ko bloqué woon. nag Ahmed Suzane nag man mi ngay waxal de xam nga ni président diggante mu demee ci Poutine nag li dara soppeekoogu fi gi tey a mën a lii de tey sax dañoo annoncé woon que ni mburu du am donte nag Abdoulaye euh, nga xamante ni groupe Sénégal mi ngi ko ne xam ne teg nañu déjà sur la table quatre milliards ko jox ma ñee waaw xam nga déjà li ma doon wax mooy euh, li am solo mooy ñoom seen stock yi ñu gardé woon maanaam lu mel ne Ukraine wala Russie seen stock yooyu bañ yàqu ba pare ñu continuer aussi la production mais xam nga ne bu dul Ukraine ak euh, Russie mën nañ dem wutiwaat feneen blé. Mm. te du tere mburu am fi. Mm. nit ñi di lekk ak naan te mburu du lekk. man tey par exemple Penda je te ah la vérité tey par exemple ndekkeewu ma lu am mburu mm. man presque mun naa toog une semaine mën naa toog quinze jours du ma ndekkee lu am mburu. loolu moo tax seen toog. waaw très bien mun naa toog man je te jure ah, mm. waa kër ñu may dégg. mun mm. naa toog 15 jours du ma ndekkee lu am mburu. Mm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ensuite beneen affaire bi mooy euh, euh, mën naa toog une semaine. Mm-hmm. du ma lekk lu ànd ak mburu. wala boog une semaine maximum. parce que déjà man leen lundi ak jeudi damay woor. comprendre nga. Mm-hmm. ba pare yeneen jour yi man damay préférer leneen lu dul lu ànd ak ñamu mburu. tu as vu donc sénégalais yu bëri aussi loolu comprendre nañ ko hmm. ils sont euh, euh, euh, ils sont pas dépendants hmm. de la farine ou bien hmm. du blé Mhm. d' accord euh, ginnaaw euh, yooyu les actualité yëpp euh, ñu gis ni ni kii le 8 juin bi passé mhm. waa yeewi askan wi yeewi wallu man wallu dama leen di fàtte sax di leen limaale parce que nag waa yeewi dañoo am bës te dañ leen nëbb <laughs> donc ci loolu ñu amal seen manifestation bu mag mhm. ginnaaw ba ñu waxee ne ànduñu ci ndogal bi conseil constitutionnel jël ngir dàq leen ci yilep élection donc ñoom nag ñu ci ne élection du am sax tant que ñoom ñu si déjà nag ñu mobiliser keroog tiital leen yow sax tiitaange boobu moo la jàpp ba nga tënee yenn propos dañ ci ñëw <laughs> Euh, déjà avant boobu naka nga gisee keroog waa Yewwi Wallu euh, déjà fusion bi si ñoom ñaar ak également taxawaay bu ñu am keroog porté seen combat mm. fas yéene nañ ko tàngal bu mu saf de mm. duñ leen may dara fu mu nekk nii waaw mais amul problème buñ ñu may dara ñun tamit duñ leen may dara c'est ah. ça parce que politique aussi noonu la voilà donc euh, rapport de force mu ngi ci ba pare aussi sa sa adversaire aussi di nga xam ci lu muy nekk bu ko defee aussi ngay fexe yooyu di ay stratégie pour le contrer. Mm. ak yooyu Euh, entente boobu du entente c'est c'est une entente de façade ah. ndax tey ci yoon ñoom hmm. buñ doon duñ doon ànd dañu waroon ànd seen liste yëpp liste nationale hmm. ak liste départementale loolu foofu la la askan bi ah dañ ko def nag avec stratégie parce que bu ñu demee ba ni euh, <laughs> dëkk bu nga xamante ni yeewi dafa am doole wala du fa taxaw wala fu mu am doole loolu xam nga c'est stratégique yow Penda ah. xam nga da ngay essayer de rek mais yow xam nga ne hmm. ñoom buñ doon ànd dëgg li sénégalais doon xaar mooy que ne ñoom ñu ànd nekk benn mais xam nga ànd bi aussi dafa jafe ak ñoom parce que intérêt yi moo tax déjà gis nga yeewee rek ñu ngi mattante di gàjjante way kii di wax ne position bi ñu ma teg nangam nangam donc xam nga kon ñoom askan bi intéressé wu leen seen bopp. non ànd boobu yéen yéen ko commencé indi yéen yéen ko yéen yéen def ci ci euh, lu ñuul ci soow li parce que yéen a leen mayul déjà ñoom ñu free euh, parce que gis nga déjà ñoom liñ leen di tuumal que ni vous êtes derrière euh, seen rejet liste nationale bi à travers le conseil constitutionnel donc loolee ba tey bu ngeen leen bàyyee être ak seen xel bu libre dinañ mun a def fusion bu bu nga xam dina porter ses fruits ëllëg. mais ñoom seen seen liste yi. Hmm. ñoom ils ont avoué leurs erreurs. ils ont reconnu leurs erreurs. ba pare euh, fii ne nii ils n'ont qu'à donc loolu la ils ils n'ont yow xam nga ne ñoom def leen ay erreur. waaw yéen def ngeen def leen ko ci Dakar waa waaw ñun tamit. Mm. on a reconnu et assumé. Mm. donc voilà donc hmm. loolu mooy waru leen woon yem rek ci assumer yéen da ngeen waroon am déjà euh, franchise bu day ne yéen sax yéen waroon constitutionné ne leen ñu ci yëlëb jonga cest à euh, bu ngeen demee yéen Ahmed Suzanne Camara yéen waa benn bokk yaakaar ak it waa yooyu ba ku ci nekk si sa côté. Hmm. mënuloo peut-être defar ay liste yu baax. Hmm. dangeen ngeen di dem toog nag bàyyi waa à Sénégal yi nga xam ñoom defar nañ seen liste ba mu baax ñoom ñu dem bokk ak ñeneen ak waaw mais xam nga liste yi erreur yi si jot a am terewul euh, ñu valider sa liste maanaam nga dem élection te loolu am na ñoom yeewi seen propre seen supplé liste suppléant la ñu validé cest a dire proportionnel parce que dafa am ay liste départementale ku ci nekk da ngay am ay liste départementale ku ci nekk am liste proportionnelle mu am titulaire ak suppléant comme ni département yi di amee aussi titulaire ak suppléant alors ñoom seen liste suppléant bi moo am problème mm-hmm. moom lañu wax ne moom lañ validé ñun suñu majoritaire bi lañ validé mm. alors donc kon terewul kenn mu dem élection léegi ñoom kay comme seen ay seen leaders yi ñoom ñëpp dañu laqatu woon si liste nationale bañ a dem si seen ay liste départementale mais mm-hmm. problème boobu lañ am mm-hmm. léegi nag euh, euh, li mu li mu wane mooy ñoom seen suppléant yi ñu fa defoon ñoom kon faalewuñ leen ñun tekkiwuñ dara mais est-ce loolu day dëggal ñoom lu ñuy wax que ni yéen bi ngeen xoolee gis ni mm-hmm. par exemple seen tête de national euh, nationale di ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko maanaam la duuf ca nag ba yëpp ma nga ca liste bu baax ba ngeen invalider liste boobu ngir gën a mën a réduire seen i seen chance mais yow xam nga ne ñoom suñu ñu nekkoon suñu nekkuloon di xëccoo position xam nga si liste nationale bi lañ nekkoon di xëccoo position déggoo ci kenn muy xëccoo position ci département c'est parce que xam nañ ne ñoom bu ñuy am foofu seen liste nationale bi du weesu dis dix député donc ah. kon ah du weesu dix du duñ fa duñ duñu duñu am lu bari mm. looloo taxoon ñu doon xëccoo ay position mm. alors donc léegi kon moo lay wan ne ñoom donc euh, liste seen liste nationale bi moo leen jaraloon lu nekk d'accord naa nag kenn si ñoom ci leader yi moo xam Ousmane Sonko la moo xam keneen la mu jiite ko def euh, maanaam bañ a dem ci département am jiite ko mais ku mel na euh, Déthié Lekh Fall euh, lu ko lu ko teree dem Saint-Louis. nga ni nu mu tudd. Déthié Lekh Fall lu ko lu ko lu ko lu ko tere lu ko tere dem Saint-Louis. ah mais Sourane Rakel jàmm sama plateau gii dëkk sama xarit la dèjà bu ko tuddee Déthié Lekh Fall. <laughs> waaw léegi. Mm. yi mii doon xëccoo ci position ci national lu ko teree dem Kédougou. du local yi dafa demoon Kédougou. waaw alors donc kon donc ñoom loolu mooy seen problème. Mhm. léegi nag ñoom xam nga lu ñu war a def respecter ñi nekk seen liste suppléant bi baataral leen campagne euh, génne seen ay moyens parce que am nañ ay moyens mobiliser seen ay nit ñu voter parce que voix yi ñu am ñoom ci département yi loolu ci lañ ci la sukkandiku. seen liste suppléant ah, déet nag loolu moom bu ñu ko defee day yomb parce que wax nga ko sànq politique rapport de force la du ah. toog rek euh, lépp lu ngeen bëgg teg seen kaw ñoom ñu nangu ko nañ comme ça euh, nga ne ay ragal nekk ay ragal te liste boobu dafa war dem ca jongante ya mais mais ñoom man boo man man bu leen gisee sax ñuy insister ñoom man damay ne ñoom immunité parlementaire la dem di wuti waat oui loolu tax ñu bëgg kut kut nekkaat député loolu rek la. maintenant beneen affaire bi mooy. kan may kan may utiliser immunité ah, parlementaire. <laughs> yow sama gars yi kay xam nga leen gënuma leen. kan ak kan adduna yi tudd nga fi léegi kenn ne sama. kan ak kan ah yaa ngi xof léegi de. <laughs> Ah. yaa ngi xof de bëgg a tudd seen tur. non man may bës. parce que ñoom duñ tudd waaw donc man du ma tudd seen tur mais yoo xam nga leen ñi ñoom ñoom ñi nekk ci euh, les premières place hmm. ñi nekkoon ci première man mun naa leen xam mais ñi si tàmm leen bañ a xam donc. Ah, man en leen may buzz. Hmm. Euh, voilà man moom du ma leen may buzz moom dëgg-dëgg parce que ñoom duñ ma tudd donc man du ma leen tudd. Hmm. mais ñoom seen liste nationale bi. Euh, biñ defoon ci ñi nekk ci kanam ñi si ëpp immunité parlementaire moo leen taxoon di daw.